ci liggéey bi am na ci ñu koy nuyu di ak madame Dior ak mboolem ñu ngeen àndal euh, man damay wax ne dama xaw a jaaxle tuuti ndax booy déglu suñu gaa day mel ne loi bi euh, démb la tàmbali wala tey lañ ko sot loi boo xam ne ñoom ñuy wax noonu ñu ci ëpp loi bi moo leen mag wala booba nañ ci daara yi jàng kon loolu euh, lu mat a xool la ci li wax ci askan wi loo xam ne dara du ci dëgg dégg naa léegi honorable Aniya wax ne am na euh, fen baaxul wax lu du dëgg baaxul mais surtout kilifa di ko def wala kuy wooye sa bopp kilifa kon nañu moytu bu baax yenn yi beneen bi di topp nag mooy li ma jaaxal mooy bu njëkk dañ doon wax jëlul jëlul mujj gi ñi ne moo jël ñu nangu jël bi dañ diñ ko condamné ñu ne léegi kon nañ ko na ñëw bokk wax ji kenn xamul lu lu muy luuru bala ñoo wax ci yooyu nañ dem ci prison bii ñi nga xam ne dañoo sàcc xaalis si jàmbur ñu tëj leen ñu fexe loi bi génne la d'abord wala ñu dem wote loolu moo ci am solo beneen bi ci topp mooy musulmi man dama leen yërëm dama yërëm président de bi ak ñi nga xam ne yéen ñi xam ne yéen yor liggéey li daloon borom kër ga moo leen dal waa ji daa xëy suba yor ab dof ci biir kër dof ñuy dem ngént dof bi ne ko bu ma demee ci ngént li damay rey liir ñu ne ko ah mu ne bu ngeen ma bàyyee ma taal kër ñu ne kon nu ñu def mu ne tekk bu yàgg mooy jël leen buum gi yeew ma ci garab ñi dañoo yeew seen bopp ci garab te yeew ndax mu yeew sa bopp ci garab mënut a paase ay nit taxaw président de la taxaw njiitu réew kilifa yu bari taxaw wax na dañoo bëgg ñu waxtaane lii nga xam ne moo jëm ci kelo code boo xam ne jàmmi réew mi lay woon nga taxaw fële ne doo ci bopp ba benn bis nga taxaw ne ñenn ñi taxaw ne ca lañ ñu waxoon ne ca lañ tey ñoo ñenn ñi daw di génn te ñoom ñoo proposé lu nit ñi nañuy moytu di wax nit ñi dëgg nañuy wax dëgg nit ñi te bàyyi caaxaan yi bu ñu nekkee fii ci biir di wax lu noonu am na ay maire yu bari yoo xam ne ñëw na ñëw na jàppale président Macky Sall PIDC bee tax la ñu def ci département Mbacké def ko ci Touba démb maire Touba doon ko doon teqeeroo démb te pake seen def ko dëkk bu ñu ko def waa dëkk booba danañ bàyyi xel président de la parce que am na ay dëkk yu bari ba ngeen yoree nguur gi loolu la ngeen waroon def ci commune yooyu ak dëkk yi da ko doon jël di ko saax saaxe di ko jëlee ay jet privé di ko jëlee ay téléphone di ko jëlee ay oto ay hôtel di foyee nit ñi tey nag loolu nga xam ne moom la ñu war a jox askan dañu ko jël président dara ko jël delloo ko askan bi moo tax askan bi moom lañ waxal ba ñu dem référendum lii ngeen doon wax naan élection yi ñëw na Macky Sall day ndax coow yi di indee coow bi ñu demee élection présidentielle 2019 gagné nañ leen gañe bu leer àdduna bi xam ko yéen ñenn ñi nga xam ne ñemewu leen woon da ngeen dawoon bàyyi leen caaxaan naan dañoo amutoon candidat dañoo def naan suñu candidat dafay nekk da ngeen da ngeen a dawoon tey nag yéen a daw làqatu ci yolom jaño ñu ngi leen di nuyu di leen sant ak seen waa yolom jaño Je vous remercie. ñu ngi lay nuyu di la ñaanal gudd fan wër gu yaram nga tal nga fekkee yàlla bàyyi la suñu kanam ba ci kanam kanam ñaan boobu ñu ci boole